jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu ngi rafetlu sunu ànd ak yéen seen mbokk Talla Diakhaté Khelcom moo nekk ci kàddu gi ñu ngi nii mboole mbokk yi nii bàyyi xel fii ci réew mi ak fële ci bitim réew li sabab nag sunu toogaay tey mooy euh, benn mbokk bi bu ñuy wax euh, Serigne Cheikh Thiam mu nekk foofu ci Amérique euh, doon ab chroniqueur boo xam ni dañuy faral dañ daan faral di dégg mu yëkkati kàddoom ci tolluwaay réew mi waaye rawatina fii ci Touba nag moom waaye façon yëkkatin boo xam ni mbokki taaliba yi kenn dawu ci ànd ak moom ndax daraan yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Touba muy kàddu yoo xam ni euh, kenn du ko rafetlu waaye nag euh, li ñu war a sante mooy euh, dafa jékki-jékki wëlbatikul boppam ci kàddu yi mu daan yëkkati ni kat ndeke man yoon bii ma jëloon bokkut ak yoon ba ma war a jël ndax ku ñaari góor jur nga judd ñettal leen am na yoon boo war a jaar te ku ne xam na ni njàngaleem sëriñ bi lépp rek mi ngi tënku ci yar ak teggin ak warmaalante ba tax na kon bi mu wëlbatikoo loolu dañ ci am ak cant ndax ku ne xam ne man mii di taala jaxate koom daa ngeen dégg samay jaamaarloo ak moom ci internet bi saa bu musaan yëkkate ay kaddu jëmale ko ci Touba li feeg tontuwun ko rek duñ am jàmm maa ak samay morom yu baree baree bari ndax ñun Touba mooy suñu lépp mënuñoo fonk mënuñoo gën a fonk lu gën a kawe Touba ndax Touba mooy suñu lépp Touba mooy statut bi nga xam ne euh, buñ soñoon war ma rek leen di di seq ak moom kon nag moo xam muy mag jun bokkoon ndey ak baay moo xam muy rakk jun bokkoon ndey ak baay comme man doon bu yëkkatee ay kàddu ko ci Touba rek muy kàddu yu dëppoot ak ay teggin dañuy jaamarloo ak yow waaye nag sëñ Seex Caam ci ndimbalu yàlla suñu borom moo ko wëlbatil boppam mu xalaat ni kat ndeke man yoon bu ma jaaroon baaxul kon loolu ñu ngi ci sant baax a baax a baax loolu nag moo mooy occasion njëkkatiwaat kàddu euh, muy kàddu kalimatu sukkur rek di kàddu cant waaye santaat yàlla bu baax a baax a baax ndax suñu borom fonk na doomu fonk koo xam ni euh, doomu aadama saa bu juumee rek bu wëlbatikoo xamal ñëpp ne juum kon kooke day daal di bokkaat kon Cheikh Thiam na ñëpp xam ni euh, mi ngi mel ni ñoo bokk ndey ak baay waaye mbokk taalibe yi ak mboolem kilifa diine yi nekk ci dëkk bi jàpp naa ni euh, kenn amul ko jàppal ci am ndaxte ñu ñëpp ñoo bokk sañ Tuubaa te dunoo bokk lu mënti séddoo Cheikh Thiam nag di koo xam ni euh, borom xam-xam la macha allah ndaxte képp kuy déglu ay vidéo am da nga xam ni kii naam li muy wax même bu fekkee neexulaat da nga xam ni kii moom ku gëstu la te ku denc ak réer la te ku xam-xamam màcc tamit ci wàllu communication la muy nit koo xam ne nag bu ñu jógee Sénégal daataan dem Amérique jaar na ci réew yu baree baree bari même Amérique googu mu nekk sax buy def ay vidéo da ngay xam ni kii euh, liggéey rek la gëm ak euh, jaamu yàlla même bu fekkee am na lu ci raxam sax loo xam ne bokk ci waaye vidéo yi muy def yëpp koy defee euh, mu leer la kon am na rek benn sikk bu ndaw bu nekk ci moom boo xam ne bu dañoon rek na ko woowee serefot sikk soosee nag la suñu borom dogal mu deñ ñuy ñaan mu gën a yokku ndaxte ku ne xam ne ni bi Euh, ñi nga xam ne mooy salafis yi ak wahabis yi dañ koo jëloon dugal ko ci seen biir ngeem ko ndaxte ñoom bu ñu xeex dafa am benn stratégie bu ñuy xeex ki ni xeexal dañuy xool ku bokk ak moom ñu jël ko euh, def ko arme di ko xeexee kon Cheikh Thiam daal wëlbatiku gi mu wëlbatiku bëgg nañ ci trop waaye ñi ngi jéggulu jël kàddu jéggulu goo xam ñu ngi ko jéggulu ci mboolem mbokk taalibe yi mboolem kilifa yi nekk ci dëkk bi di leen jéggulu Cheikh Thiam di xam ni Cheikh Thiam seen doom la Cheikh seen taalibe la Cheikh Thiam doomu dëkk bi la njuumte moo mënta ñàkk ci nit rek ndaxte ñun ñi amul kenn ci ñun koo xam ne tey ji mu la indi laa doon sa biographie li nga weesu euh, faaw nga am loo ci récc loo jëf wala loo wax kon nag Cheikh Thiam kenn la ci ñooñu euh, mu doon koo xam ne kii ma den leen nii rakam la kii ma den leen nii di xaritu benn bakkanam ñi fi toog ñi ñëpp kenn ku nekk am na lien bu la boole ak moom muy nit koo xam ne seer yi ma dégg ci moom yëpp mooy euh, nit ku bëggoon jàng la nit ku bëggoon lu baax la ci daara ci fii ci Touba daara yi ñu fi gën a ràññee amul ci benn daar boo xam ne Cheikh Thiam jaaru fa mu nit koo xam ne kon ay waajuram wàccoo woon ak moom mooy teg ko ci yoon siraatal mustaqiima yoon woowee nag xawoon naa tarxiis tuuti nag waaye dikkaat na ci yoon wi kon nag ñu ñëpp ñoo bokk lépp ñoo bokk Sëñ lépp loo xam ne day jëmale dëkk bi kanam rek ña nga ca am na nag ay projets yu bëree bëri yoo ne su mën am ay partenaires yu yoo xam ne na ko foofu ci États-Unis war a dikk ak moom fii ci Touba Mbacké na amul benn dëkk mu gën a fonk bu dul Touba fee mu rek ci moom kon nag li ngeen xam daal seex Thiam ah, mi ngi jéggulu ñëpp bépp kàddu boo xam ne mos na koo yëkkati mu doon koo xam tamit fii réew mi toll ci ay jafe-jafe waaye tamit fii jamono ji toll nga xam ne fi mu toll yëf yi jaxasoo na trop soxla nañ ci ku mel ni Cheikh ndaxte ndawi Tuubaa am nañ ci moom cofeel trop ko ba ñu bari sax dinaan ma taala jaxate xel koom Cheikh Thiam de buñ soñe mën fii doon su leader ci lépp loo xam ne dafa jëmale dëkk bi kanam su nee leader nag ñu baree bari seen xam seen xel day dem ci politique waaye déedéet képp kuy jiite rek maanaam di gindi aw askanam maanaam leen leen xiirtal ci loo xam ne njariñ lay doon ci ñoom te duñ ci lor rek euh, kon kooku leader leen koy mën a wooye kon Cheikh Thiam daal ñi ngi taalal loxo kilifa yi nekk ci dëkk bi waaye di taalal loxo état mu ubbil koy bunt yombal ko ba partenaires yooyu ak sumb yi sumb ak projet yi nga xam ne mi ngi moom mu indi ko fii ci ndax soxla nañ ko waaw appel may def ci ñiy saaga kilifa yi diine yi ak di yëkkati ay di ko jëmale ci kilifa yi ñooñu moom euh, duñ jóg mukk ci di jaamorloo ak ñoom waaye dafa am loo xam ne man alku laa koy jàppe ndaxte ku mel ni Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul maam Alaaji Maalik maam Baay ak kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi ci réew mi yàgg liggéey suñu borom liggéey mucc ay ba tey ji fay leen fay mucc ay penc moo dem xam ne kii du ko ndaw yàllaa ko fonk téer ko boppam ba tax seenu njabo ñoom ñëpp ñu leen warmaal nga yëkkate ekkaat di ko jëmale ci ñoom jàpp loolu xaru la te lu ko gën a nekk danse gën ko nekk risque amul ndax Cheikh Thiam yi walbatiku gii mu walbatiku ay mbokkam yëpp ci bëgg mbokk taalibeem yëpp ci bëgg ndaxte risque la danse la ndax nit ki li yaa ngi attaqué ngëm-ngëmu jàmm rek nekk ba jàpp ne am nga sécurité foofee mooy fa gën a ñàkk sécurité ci yow kon daal képp koo xam ne yaa ngi yëkkate ay kàddu di jëmale ci kilifa diine yi ñu ngi lay alerte la xaman yoon woo nga jël baaxul wëlbatikul ñëw te xam ne lu baax rek moo am solo loolu daal mooy li ma ci yëkkati ginnaaw bu loolu jàll tamit li ma ci tegaat mooy Cheikh Thiam ku ne xam ne ni bëggum bëgg réew mi ak bëgg dëkk bi moo tax taxawal na benn mouvement sax bu ñuy wax ma réew euh, li ko tax a jóg mooy boole ndaw ñi li ko tax a jóg mooy siraatal mustaqima lépp loo xam ne rek lu ñu war a la comme aay bi suñu borom di wax ci alquran ko kenn ku nekk rek indi sa xel ak sa xalaat ndaxte addina bi jamono yi ñu toll ak lobby yi campagne de am ku ne xam na ni borom xel dañ ko soxla kon Cheikh Thiam soxla nañ ko trop ci dëkk bi. sëñ Talla yow de bay nga euh, làcc woo xam ne bu la ko yàlla fayee moom euh, yiw dana bari lool ndax kaxab keroog ba yont bi décrété naan dagg boppam ka njëkk dem déy ko ko pour mu jëggalu si ba mbokk ci sax yi gën a mag kookee am na làcc wu rëy wu mu bay ci lislaam mbaaxaan Jóob ba ko Cheikh Ibrahima Fall jëlee yóbbu ko ba sëñ Tuubaa tudd ko Abdul Xafoor Cheikh Ibrahima yàgg naa bëri garaat yàgg bëri ndam waaye loolu de lu dolleeku ci ay mbiram la kon yow mii tax ba réconciliation entre Cheikh ak dëkk bi euh, ñu taxaw fii di ko régler yow de yal na la yàlla fay ci loolu waaye ñu leen di xamal ni Cheikh ab murit la boo xam ni ay grand parents ñu koy wax ay maamam ay militants première heure leen Cheikh Thiam fokk Sëñ Tuubaa làq yàq mënu euh, mënu faag su ko bëggoon moom sax mënut a mënut a dindi boppam ci sëñ Tuubaa ay frustration nag ak euh, ak euh, mer ak euh, xaw a drapé tuuti rek moo ko jàpp te loolu yàgg am waaye man seetaam li tubaab naan ses pensées ne traduit pas ses propos ah, li muy xalaat di ko wax li muy xalaat ak li muy tudd ci làmmiñam dara bokk ci man su ma ko daan déglu duma déglu parolam xolam laay déglu nit koo xam ne buy ubbi danaan barki Serigne Touba buy tëj ne barki Serigne tubaa am na kilifa goo xam ne bi ma ko waxee mu moom daal ah, man de seetaam ay mbiram jaaxlu ma ndax eh, koo xam ne daal lu wax ni Touba ma gënal fépp lum wax ni sëriñ tubaa ma gënal lépp kooku su sunu sunu jaboot la na ko fexee rek mu dikkaat loolu moo ne ci seetaam muy koo xam ni a ah, jàmbaar la di liggéeykat di ko bëgg sëriñ tubaa daayira bi nga xam moo njëkk ci sunu koñ. Serigne Saliou tëdd woon ko Miftaaxul Xuyoor damay wax rek ci li mu liggéeyal Serigne Touba moom il fii nit koo xam ni moo ko njëkk a prononcé ci làmmiñam ni nan nan def daayira bi ñu demee wax ko Serigne Saliou ni ko ñun ay nu raxmati leen dëkk danoo bëgg a créer daayira ñëw di la jébbal si lii Serigne Saliou dañuy daayira bu fu ma sa ñëw kontaan naa ci waaye rawatina bii ma dëkkal dan maa ngi leen di xamal ni ni ma dëkkeek ak yéen fii noonu laay dëkkee àjjana loolu sëñ Dab Sàmmee mën na ci seere daayira ba nga xam ne moo nekk Cotonou nga xam ni bokk na ci plus grand rassemblement yoonu murit wi ci bitim réew Cheikh Thiam moo njëkk ki ko prononcé boo demee Tchad réew moo xam ni mu mel ci guerre ak ni mu mel ci ay armes ak ni mu mel ci njàngaay moom dong moo fexe woon ba daayira Serigne Touba ñu permettre leen ñu dugg ca pale ba di def comme journaliste yi ni ngeen ma def ñu téeméer ay micro ak ay ay ay ay loolu mus amul kenn ku ñemee mas a yëkkat sa loxo jëmee ko ci palais bi te wàccewul la. moom liggéeyaloonoo Serigne Touba ban may ko muy def ay reportage di wane murid yi di wane ah, Serigne Touba foofa ca Njamena li may wax ni doomu sëñ Thierno Golongal man na ci seere yaa ngi dégg kon seex nit la koo xam ni ah, xanaa dafa juum rek ñu koy jéggalul ñun toute sa famille tey sax dana am benn xew-xew bu boo bu xaw a bett moo tax ma kese ma ñëw waaye incha allahu rabbi lii sax bëgg nañ koo def defaat ñun sa famille pour gën koo jubóole ak réew mi ñu koy xaar nag ñu koy xaar ci ay plan de réconciliation ñoo xam ne bëgg nañ ko ànd sëñ Talla Diakhaté bu dikkee balaa ab saagam di tege bëgg nañ ko yóbbu ci kilifa yu bari wala li seen dooma gi nii seen taalibee gi nii juum rek moo ko taxoon muy wax waaye maamam ju tedd ja ba nga xam ni sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma def na ko jëwriñ tindoodi ak nayda maam ya xam ni ànd na ko sëñ Mor Ngode Fall ànd nañu ko sëñ Aliou Bousso dox fii ba xumaat ak sat saara fekk ji Serigne Touba bam naa leen ina la seen ira sat saara xasadu loolu seecaam ci la dugg ay mbiram mun a yàqu tey mënut a yàqu suba ma nag maa ngi xamoon ni fët-fët mënut a tàggee le mbaam ak i noppam yàgg-yàgg seex day ñibbisi te day duggaat ci yoon wi te mus cee génn maa ngi jéggalu ñëpp